jërëjëf yaakaar naa ne ñu dugg ci coow li mooy gis nga état de forme Reug Reug gis nga état de forme Sa Thiès balaa ñëw yow ci wàllu bëre ba ak ci wàllu xeex ba ak ci ñaari mbëri ku ci nekk ni nga war a analyser sa combat ni nga ko war a aborder mais bi nga gisee ñaari état de forme mbëri lan nga yëg. foofu moom wax dëgg yàlla cent pour cent laay mën wax ci ñaar ñëpp. Mhm. ñëpp. ما شاء الله ت ت ناري ناري مبرلونيو دني مسنك تفهم نني وخمسة دقيقة أمنا أي مبرلونيو خمسة نسمي أمور كومبارة دونك أي سانتير تنيو بولين خالد رك دونك أي سانتير نيو ساتيس لي مومن رك لي رك رك مو بنان أفهم ما شاء الله أمنو متي واحد دارا بس كمون مونجي تيو أمنا نيو فرم دال نيو ناري منو ما واحد دارا تكتبون دقنا أنا جيني عندي واحد مون دفع يوقف فرم مو مو ساتي كي rek dafa yokk forme tuuti poids affaire yooyu xëy na am na fu mu ko teg am na ay entraîneur ñu xees am na ay entraîneur ci biir Sénégal xam naa ñoom ñoo koy wax mu yokk état bi tuuti mu yokk poids bi waaye nag wax dëgg yàlla ñu ngi ci forme ñu ñaar yo mais nag dañoo wute dañoo wute googu nag ci laaj dañoo wute googu nag ci laay ñëwee gi yow laaj la tey jii ay point rek laa lay laaj te xam naa ne laaj bi mën ta yàgg mais tey jii boo indi woon rëg-rëg ne ko kaay bëri Sa Thiès loo koy bëri loo rëg-rëg waaw rëg-rëg waaw dama wax ne tey rek ne ne tey ne tey na xaar waa ji bi mu ñëw jàpp ne tey no mo bu mu nangu xeex bu mu nangu xeex ne ne na nangu am fu mu jàpp ci biir xeex waa ji bi mu indi moom na dugg bu mu nangu xeex ak waa ji bi bu mu nangu xeex la ilaha illallah mën nga xeex ak moom. yaa ngi toj ko bi de. waaw. rek lan moo tax nga ne rek lan moo tax nga rek bu Sa di xeex bu mu nangoo xeex na fexe ba jàpp ba pare lu waral loolu. bu Sa ñaaw ci kawam rek nit jéem a jàpp regret bu jàppee rek mën na def lu nekk bu jàppee benn yoon ci biir bu jàppee ti ngeen ci biir waxuma ci bitti de ci biir bu jàppee rek mën na def lu nekk parce que day dindi yeneen clé waaji bi xeex moom mën na ko dindi parce que regret dafa yéex waaye day xool lépp lu muy def da koy xam nga rek lu muy xeex lu muy xam da def mu dindi après mu indiwaat beneen moom bu mu xeex rek na jéem dugg ci biir rek comprendre ma bëgg a naa li nga su ma la déggee da bëgg wax ne rëg rek na lépp lu muy def bëreem ak xeexam yëpp balaa mu ko def na jàpp ngemb ba pare doo ko def. bu waaj bi ñaaw naaw ci kawam bugg a xeex saa Cees xam nga day ñëw.

waaye Sa Thiès bu ko indi woon ne bu mu waa bu mu nangu rëg rëg jàpp bu ko rëg rëg jàppee bu pare na bu ko rëg rek surtout ñaari loxo ñaari loxo mu foofu amatul lu ñuy wax. bu mu nangu bu mu nangu rëg rëg jàpp. bu mu nangu na jéem jàpp ñaari loxo ci gerte. bu mu ko rek pare na man mii maa wax loolu. nangu Sa Thiès nag. wax. Hmm. Sa Thiès nag dafa xarañ lool am rapidité. waaye léeg lu ko yàqal lépp mooy confiance bi muy am moom daf ko yàqal parfois daf ko yàqal. dégg billaay ko dégg fi daa dagg daa dagg daa dagg li nga wax ci Sa nga ne Sa Thiès dafa rapidité lan nga wax foofu. moo am na rapidité. am na confiance waaye confiance bu muy am parfois daf koy yàqal daf koy mm-hmm. jóomloo quoi parce que nit ki da ngay am confiance yëg ci sa kaw adversaire nga yaakaar ni loo def rek day jàll fekk adversaire moom bi bu ko xeeb comprendre nga Sa Thiès nag moom bis boo ko dégg muy wax rek moom moo mun ku nekk te loolu nag staff am war nañ ko jox conseil ci côté boobu parce que gis nga muy def contre Boy Niang 98 2018 tac tac tac te même cité sax na def ndànk Sa Thiès bëgg am dam ci kaw Reug Reug na def comme Reug Reug xam nga nag dafa tey day xaar dalay jàng moom tamit dafa dafa au moins une minute d' observation ba xool lan la Reug Reug di doxal waaye bu fekkee ne arbitre day soufflé rek comme li wax ni day ñëw loolu naa yoo xam ne moom buñ ko bu ñu bëree dix fois moom da koy daan dix fois loolu moom mun na nekk. loolu loolu wax ak yaaw jaal ak keneen waaye moom Sa Thiès moom noo bëree ak moom dix fois nga daan ko dix fois loolu moom mun na nekk. parce que Sa Thiès ndaanaan la te wax maa ngi la wax ni Sa Thiès dina yeggaat de coupe bi dina yeggaat ragal naa nag mu doon. waaw sa waay naa def. waaw maa ngi. zen laaj zen ay dara xam da ngay Fadam Fadam dafa baax rek Fadam dafa baax rek. mais <laughs> mais Zé Aïdara Zé Aïdara foofu nga nekk dafa am solo. Mhm. yaakaar naa ne ñëpp ñu ngi lay bëggee kii ko su jabong la tudd. nekk mhm. course international bu la gisee ngay wax li ngay wax tegu ci yoon moo tax mu def demande pour dugg ci live bi eh, léegi ñëw nga ci Sa Thiès ak ku ci nekk lan nga koy digal mhm. mais tey jii ci biir géew ba. Reug Reug nan la war a aborder combat am ak Sa Thiès nan la war a aborder combat am. xam nga xam nga combat. na tey Reug Reug moom Reug Reug. Reug Reug na tey rek. xam nga Reug Reug moom bari na am na ay gàllaaj yi moom kenn du wax xam nañ ci lu may gis man Reug Reug bisam dafa mës a mag لو فهم السمر لا بلاي عندي لا بلاي عندي واي نتيرك كم لمدان دفرت لمدان ام لمدان ام آه، ندم نون لا ورا دخل نون لا ورا ابورد كم ابي تدرك ساتشيس دابا ورا شانجي دابا ورا شانجي خمنا مستيك ام نكو بباري كو خمنتني راكو بالغي مستيك بباري خمنا فوم وتي خمنا فوم ام واي نشانجي stratégie ci biir géew bi eh, foofu na changé na na indi yar indi tey indi bopp regret day damee regret regret balaa muy bëri ak muy ut day xam ndax fu muy ut baax na wala déet kon na def ndànk man loolu laa koy wax mais Sa Thiès euh, da ne Reug Reug lépp lu muy def na jàpp ngemb kon da bëgg wax ne Reug Reug bu jàppee ngemb ba pare ci la xeexam war a commencé reg bu jàppee rek yow gis nga combat reg reg yëpp yu ci ëpp yu ci ëpp da gis nga contre Elton mhm. am naa benn pakistanais bu ko doon seetaan dafa yuux hmm? gis nga reg reg reg reg jàmbaar la de billahi reg mhm. reg la boo gisee lu muy daan Elton nga xam ni foo ko nag weesu na foofu loolu moo tax ma sama waay na def ndànk na def ndànk bu mu nangu bu mu nangu Reug Reug mhm. bu mu ko parce que Reug Reug bu jàppee ñaari loxo moom pare bu jàppee benn mhm. nag mu jàpp xeex wala di di di dindi comprendre mhm. yaakaar naa ne am naa ñaari gan yoo xam ne nii te xam naa ne bëgg naa ñu laaj la ay question ndax moom bokkut a ñun nationalité waaye tey jii mu ngi nekk euh, Mauritanien la boo xam nii mu ngi vivre États-Unis tey day jàppante Mauritanie ak États-Unis waaye mu ngi topp làmb mu ngi topp làmb mu ngi topp làmb ci anam yu nekk te yaakaar naa ni muy analyser làmb da ngay xam ne kii ko su jabong yàgg bës kii mu ngi topp lamb cent pour cent ñu njëkkee ci ko su jabong boo amoon waaw bës moom maa koy seetaan bu baax a baax kontaan naa ci bu baax kontaan naa ci xam na lu muy def xam na xam na bu a baax maa man kilifa la kilifa la ci làmb macha allah tabarakallah ko su jabong ñu njëkkee ci yow boo amoon question yoo koy laaj balaa moom moo tontuwaat Kousu Diabong boo amoon loo koy wax lan nga koy wax. waaw mais maa ngi maa ngi nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi seetaan live bi di nuyu Beuz sama xarit <laughs> Fadam di nuyu di nuyu euh, Zé ngi lay nuyu bu baax vraiment di nuyu sama mbokk yi nga xam ne ñëpp ñu ngi seetaan live bi donc euh, di nuyu nag sama sama sama xarit sama sëriñ sëñ Cheikhouna Mbacké mu sëñ Fallou yàlla na ko yàlla yàlla may gudd fan ak wër waaw man mu lay laaj mooy ah mais yow yow yow man de wax dëgg yàlla man xool fo Fouza Fouza foo yaru Passaw waaw yooyu ñooy sama xarit ah dëgg la ak ma xarit am Ah, faré tout le monde. Marcel Assani, nous donne entraînando, nous on est toujours 2097, 96. Bon, nous, bon, papa ça au halal. comprendre am na ay xarit mbër foofu ñu bëri mais dama gëj Sénégal moo tax sama lam léegi seetatul quoi dama gëj jàllale ko may wax nag Abdoul Aziz Fall bu fekkente ni mu ngi may seetaan na ma jéem a woo. kan parce que maa ngi war numéro bi pour nag mënu ma ko jox. sama benn xarit Abdoul Aziz Fall. Abdoul Aziz Fall la tudd bu fekkee ne mu ngi seetaan salaay bi na ma jéem a woo parce que soxla naa ko lool. jërëjëf. man nag am na ay xaritu mbër Parcelles Assainies la ñu nekkoon. ñoo magandoo presque mais dama jóge Sénégal. 2000 laa fa jóge ba léegi dama guma foofu. Hmm. moo tax sama olof bii setetul léegi waaye taxul maa ngi seetaan seen <laughs> lam ba léegi. sama sport dama ko bëgg sama xol mënu ma ci raté dara dara dara dara dara wax dëgg yàlla xaaral ma bàyyi la ak bël xaaral ma la ak bël après ko su jëm ak doomu bël aca boo amoon looy wax ak moom looy wax ak Fadam macha allah Fadam yaay yaay indi ku ne wallaay wallaay wax nga dëgg Fadam dafa baax rek dafa baax macha allah moom boo ko déggee macha allah am na bàyyi la allah Zeyne ñu ngi koy nuyu bu baax di nuyu ci jabam di nuyu ñëpp ñoo xamante ne ñooy seetaan sa live ndeysaan maag grand Victor ñoo nekkoon léegi ñoo reerandoo teelu bi lañ nekk nii vraiment grand bi gàtte ma lii day wane ni que live bi fadam mm-hmm. live bi dafa dafa lu ci nekk léegi dafa bari quoi wax dëgg yàlla nekkatul loo xamante ne maanaam ay nit yu toog ñu ne di waxtaanee làmb waaw c'est devenu international mm. et c'est devenu une famille mooy fii ñëpp sekk teranga ñëpp bëggante dañuy waxtaan kii faral mbër bii kële faral mbër bëre bu ñu waxtaanee teewul ba làmb jeexee tey ñu ñu toogaat di ko reetaan coach Diabog mu ngi nii man bi ma demee France sama papa feebar dafa ñëw ba sama fi ma dëkkoon maag set si ñu te pourtant làmb moo ñu boole kon làmb day boole te xoolal Zane mu ngi ñuy dugg si fii ci live bi te à travers live bi mën na ci gisaat ay xaritam yu bari mu ngi fàttaliku loo xamante ne yàgg na Papa bu ko gisee wala bu ko gisee seen xel seen seen seen xel dina sori donc lamb day boole te wax dëgg yàlla tey live ñuy def nii vraiment ñu ngi wéttali bari na waaye nag xam naa ne mu ngi yëngal sëy yu bari nag gars yi live yi nañuy éviter muy guddee ak ku jóg bu ndaw. waaw sëñ bés. yéen ñi ngeen am eh, ay émission bu leen waxati lamb sénégalais da ngeen wax lamb international. parce que man damay hmm. fiir boo boo leen di wax rek lambu sénégalais man damay fiir parce que da ngeen wax lambu international ñëpp a koy seetaan ñu bëri fii xam nañu Modou Lo xam na nañu Mouhamed Ndaw xam nañu ñeneen ak ñeneen. kon da ngeen di wax sport international. seen sport la bien vrai culture sénégalais la waaye ñëpp ko moom léegi parce que dafa génn ci télé ñëpp koy seetaan. da ngay xam mais man li ma la bëggoon laaj comme Lionel Messi rek ak Modou Lo ak ñeneen ak ñeneen. man li ma hmm? man am naa ay xarit ñu koy seetaan. daf leen neex lool. Hmm, hmm. ndeysaan man li ma la bëgg a laaj mënuma compter dañoo bëri. man li ma la bëgg a laaj man ah moom mooy dégg naa la ngay analyser ci rëg-rëg ak Sa Thiès est-ce que seetaan nga vidéo yu ñu nekkee di entraîner rëg-rëg yu mu solee yu bleu yi sol yu orange yi. waaw. waaw yow état de forme fu mu toll nii pour yow kan moo sàcc doole wala kan moo ëpp doole diggante Reug Reug ak Sa non amul sàcc doole amul sàcc doole. kii Reug Reug moom moo sàcc poids tuuti rek dafa yokk poids tuuti rek. tuuti rek waaye keneen tamit kii dafa moo ko gën a au prolonge tuuti quoi. loolu moom naturel la. loolu moom naturel ok mais mais ci combat bu ñu jëm nii pour yow combat bi day gaawal day yéex. non day gaaw day gaaw. Hmm? ndox du bàyyi woon ah. Sa Thiès moom noonu la ma Sa Thiès noonu day dem di rek xam nga man su ma nekkoon ci woto dama koy dama koy tàkk sax parce que dama bëgg mu am victoire il faut que mu jéem a déglu ñii ñuy nekk ci parce que gis nga combat comme football rek combat bu ci nag am na loo koy abordé parce que rek Reug du Boy Niang comprendre nga Elton du Sa Thiès mais Reug Reug moom xam na loolu mu combat bu ñëw day am lu muy du xale waaye kii combat yëpp même yoon rek mu am wala mu du am alaaji fadam alaaji fadam alaaji fadam alaaji fadam Zéen lu la wax nii mhm. ba ici repose du deñ est-ce que xam ni Reug Reug xam na ki muy tasante Reug Reug xam na Sa Thiès mm. mais Sa Thiès moo lijjantiwul loolu Sa Thiès lijjantiwul Reug Reug fu mu toll nii foofu la mm-hmm. problème la te boo Sa Thiès moo te ñàkk lijjanti saa ñàkk lijjanti bu Sa Thiès lijjanti ñàkk lijjanti Reug dafa mel looloo ko arrangé ci combat bi billaahi mm-hmm. non dama leen di bàyyi nga waxtaan rek ku ci jomam dugg leen yéen ñett waxtaan leen ma damay seetaan Oui, mais ah. a dit ça. mais mais man lu ma laaj tu su si wàllu xeex si wàllu xeex kan moo gën a set xeex tey déclenchement su nous tey tey nooy un koy gisee noo koy noo koy noo koy analyser bu dee xeex dëggantaan tu xeexu un Reug Reug moo ci dàq waaye bu nous Sa bokkuñu بلا مو يدف بين ساتشيز ندف نيت بلا كوكو يدف بين ساتشيز ندف نيت تلولو باخر تيمو من سوما دون وقت ساتشي رجرت بومنانغو خي حق ساتشيز بو خي حق من رب جون نجيمو اتفمو جابرك ندوغو نجيمو اتفمو جابرك بو جابرك نبا الله waaye léegi léegi ñoom ñaar kan la si loxo bi gën a non dix moom mun na ma ci wax dara ñoom xam nga ñoom ñoom ñëpp ñu ngi ci forme. Mhm. dix ci ban côté ngay wax ci doole wala ci dix xam nga. koo xamante ne bu la bu la dóoree nga yëg ko ñoom ñaar kan moo ci dóor morom mu yëg ko. ku ci dóor sa morom da nga koy yëg moom. ñoom ñaar ku ci dóor sa morom da koy yëg ku ci dóor sa morom da koy yëg waaye nag xeex rek bu dee xeex kese kese rek bu ko nangu man loolu laa koy conseillé bu xeex ak Sa Thiès ko balaa muy xiif sax jaar na ci ginnaaw jël sànni na ko bu yàgg. Hmm? parce que Sa Thiès xeex bu mu la bu mu la indi du du du moom la du moom moo ko tax mu jóg da lay sànni koo rek pour jaar yóbbu la fu mu la Sa Thiès dafa gaaw de balaa ngay xifte rek sànni la kon nag Reug Reug na jéem a doon défenseur bi yoon na jéem a jouer rôle Boy Niang wala Lac de Guiers sax laay wax foofu c'est-à-dire na jéem a arrière teg tegi bu mu nangu xeex comprendre nga ne donne Lac de guerre, sax laay wax rek ne donne Lac de que. foofu bu non noonu rek mën ah, victoire. peux que que combat de suñu suñu suñu euh, Sa caisse mhm. am ngemb am ngemb fofu day metti waaw fofu day metti fofu day metti mais xam nga ñoom ñaar seen du Mm-hmm. parce que Sa Thiès bu la jàppee bu tante rek bu jaarul day utaat beneen. Mm-hmm. rek rek mën na résister mën na xaar dafa tey te loolu moo koy moo koy mooy chance rek rek bu jàppee du bàyyi. Mm-hmm. te kooku bu jàppee bu defee nii du xool day déclenché beneen côté bu déclenché kooku mën na ko comprendre da koy déséquilibré quoi bu ñu jàppante ñoom ñaar keneen moo ko avantage euh, rek rek moo ëpp avantage bu ñu jàppante rek ñoom ñaar. Reug Reug moo avantage parce que da day résister quoi day xaar da lay jàng day jàpp xool kii mais kii mun na jàpp sax bàyyi day jéem rek du dox mu utaat beneen enchaîne ci biir enchaînement boobu kooku mun na ko juumloo bu dindi loxo rek da koy fol wala def ko la yow xam nga lu may wax. xam nga mais mais mais xam naa bu baax mais benn point laa la bëgg a laaj comprendre nga li ci des quoi. yi ma la bëgg a laaj combat bu combat bu combat combat bu diire kan la gën a arrangé. ci diggante rek Sa Thiès. combat bu diire rek rek la gën a arrangé rek ko gën a arrangé nu mu a yàgg rek rek rek la gën a arrangé. te dinaa bi du yàgg foo koy xaaree du foofu bu xaar ne si yow xam nga lu may du yàgg du mos yàgg. <laughs> mën naa ciy bu doon beneen combat mën naa hésité mais combat bi. ci sama xam-xam bu gàtt du yàgg day gaaw lool ndax ñaar yi dañoo xiifante te ku nekk xam ne combat bi fu mu ko yóbbu ba pare kenn kii moom dafa yàkkamti aldonam noonu la mu dafa yàkkamti Sa Thiès dafa yàkkamti toujours xanaa ñu indil ko ay affaire mu ñëw changer stratégie nag dellu ci ginnaaw te loolu bu ko defee nga xam ne mystique moo ko kon yow da nga gëm mystique su ah dafa mel ni da yaa ngi bàyyi xel mystique. waaw ci combat bi. Uh-huh. bañ a mystique dafa am yow xam nga lu ma lay wax bu baax mystique moom mystique moom mooy mistik moom moom lépp dangay gis mbor muy ñëw am doole après xool rek xam ni kii dañ ko jàpp mystiquement fekk live bi yëpp nga doon seetaan jaar na yoon mooy mooy signature de contrat yi yooyu yëpp ngay gis muy jaar yoon mais bis bi bu ñëwee rek nga gis ni ki moom tey nekkul fii કોફી યાજ્ઞાન કોગીસ ما યાજ્ઞા કોગીસ થી કોમ બાય تخول لولو موي دال بالغي بالغي تاهيب لولو مو كيدال باسكو جسنا بالغي خلل بالغي دو مقد مي دما واخ ما بوغولون واخ جسنا بالغي بو دانولون يكيني كنتو كدان بو دانولون يكيني كنتو كدان الله اكبر بالله بالغي بو دانولون يكيني kenn du ko daan ci lam ba wala balaa muy daan day yàgg mais gis nga daanu bi mu daan Yékini moo koy top ba léegi naa la wax loo nan la ko toppee naa ñu nan la ko toppee. gis nga Yékini Yékini Yékini beneen niveau la beneen niveau la. ci lamb ci mystique ci lépp amul morom li mu lay wax nag ci mystique ci doole ci xarañ ci lamb Yékini amul morom mais Balla Gaye dafa ñëw nekk ci digg doolam nekk ci digg mystique am ak loolu yëpp ñëw jaxasi ko dem këpp gaal loolu moo ko topp ba léegi gis gis nga lu mu këpp gaal gaal yëkkini noonu noonu la ko topp ba tey billahi sinon Balla Gaye xalal la xalal la ma du du paa noonu xalal la te am na doole macha allah te mun na bëri dafa njaxlaf Balla Gaye xaw ma xam ndax comprendre ngeen jaxla wala dafa c'est-à-dire dafa am rapidité quoi dafa am. mais Balla Gaye ak Sa Thiès kan moo gën a dangereux Balla Gaye ak Sa Thiès ku gën a dangereux. bokkuñu bokkuñu bokkuñu Balla Gaye ci jamono ci jamono ah amul morom ci jamono laay wax de Balla Gaye bu yàgg. yow xam nga Balla Gaye bu yàgg ak Balla Gaye yenn dernier temps yi revanche bombardier revanche kooku du Balla Gaye kooku beneen Balla la. xam hmm? ñëw rek ba bàyyi bu njëkk bi moo koy topp ba léegi waaye nekkatul Balla Gaye bokkuñu Balla Gaye ci bëri Balla Gaye yow gis nga Balla lu muy daan gars yi bokkuñu. Hmm. mais nag mais nag na jéem a encadré Sa parce que Sa par pare gudd. pare gul de day yëg day yëg pare gul hmm. Sa pare gul. kon kon Balla Gaye moo war a ëmb Sa Thiès indi ko dimanche. su combat bi war a dafa war a feeñ foofu. Balla Gaye dafa war a feeñ nii ñuy gis ko muy waxtaan ak rakam di ko conseiller comprendre nga dafa war a feeñ Balla Gaye dafa war a feeñ foofu mu woon ni carrément dafa jox kii drapeau bi. boobaa bu ko defee dina am lu muy tekki quoi dina am njëriñ ci moom. Hmm. na jox xale bi confiance. جمكو عن كادر بوم فاتن مو دمو دون ات امنكو بباري امنا روا دزالين دان بونك يوب دفن يوجا حسلين بين بار بين mm -hmm. كومبراني دين جيم ام خالبي عندي اكمو ندخل مو mm -hmm. من نك روا دزالين باسكو ساعتي اسما كومنان من ام دارتي نخل نخل نخل نخل مسلم ادفنسيال بو غنا دانجر ساعتي غوم موكو غاي دني واخ غري دي ني واخ ñuy wax Elton ñooy yëpp ay ndaanaan la ñu dañoo am doole mais bokkuñu bokkuñu xam nga ad yow xam nga li ma la wax adversaire yi bokkuñu adversaire saa Thiès saa Thiès bokkul ak ñooñu bokkuñu lan la mu ngi soog bi bi combat ci la ñu mën a xam ndax rek rek day yëg ci niveau yu mag yi wala du yëg fii waaye boobu boobu bokkul waaw Zane Zane tey man su ma doon arbitre ñaari mbër yi pare nañu ba pare. waaw ñu ne face à face. tey Reug nan la war a taxawee. Sa Thiès nan la war a taxawe ndax kii day bëri latéral. wala kii day teg si day nekk si digg bi ah. donc latéral moom rek moom day taxaw rek xam nga rek rek lu muy taxaw moom day taxaw rek xaar. Sa Thiès man gisuma foofu bëri latéral moom gisuma ko ci komba bi. bu arbitre soufflé rek dañuy. قوم انا sa 30 سكوند ديا smo nju direkt. ديريكت će. تيلو ما ديفا خنا مو يسامش اي استراتيجي استراتيجيم دانيير مينيت واي اي بوري لاترال يوي يوي ديفانسير نيو كايدا مبور ديفانسير نيو يبوري نون نيو نيو دم كوتي دي دم نو فوفو عمول بوري بوري لاترال كوكو ديت سم تانكم رخو تخاو ريغريت كان كي داكاي خول نين رب تشوفكو كبير تشوف بابا افير بي لا بلاي دكرانش عندي سان شنو راح ندسان دان لكو بالله دان لكو دفن نخ بابم داني واخا نكو جوم فوفو مو دا ngay دك جوم تاعنا فوف مي خاوما تي بان كوتا لينا واي جوم تا مو دنا ام نعم فوف دنا ام نعم كو جوم فوف الله اكبر على طول بالله كبير جلبي كبير جلبي نين نين نين بولين دي واخا دا ngay واخ امنا كو جوم لينا واخ لا لا جوم fadam xam na gis nga fadam nii teerale ci lamb xam na lu muy demee yëpp waaye comme moom moo yor émission bi na déglu rek mais mais man kii li mu wax dara du ko dindi non dara du ko dindi mais man bés daam fu mu ko bëgg kontaan naa nag kontaan naa nag bu baax bu fekkee ni xam naa ni fadam moom live bi dugg bu fekkee ni sonal naa leen wala yooyu kontaan déedéet déedéet ñun ko rek ñu daam lu ñu la bëgg a laaj daam lu ñu la bëgg a laaj ndax dañ ne amoo jot amoo jot li mu la bëgg a laaj mooy man am naa jot man aw ma moom xam naa sama nelaw dina neex lool. Ah. tey moom dinaa nelaw bu baax a baax. waaw macha allah tabarakallah li ma la bëgg laaj mooy li ma la bëgg a laaj. rëg-rëg ak Sa ci biir géew. tey jii rëg-rëg tey jii Sa war na ko gëdd muy xeex di dox ci kawam ndax rëg-rëg arrière nga wax sànq. arrière boobu nan la war a aborder Sa pour mën a jàpp Sa Thiès nan la ko nan la war a réagir ba war a mën a jàpp Sa Thiès. ngeen ci biir ci biir géew bi. rek lan la war a def ngeen pour mën a àgg ci ngeen bu Sa Thiès. waaw parce que yow yaa ne yow yaa ne Reug Reug pour mu nekk ci sécurité il faut mu jàpp ngeen bu Sa Thiès mais Reug Reug lan lan la war a def ba jàpp ngeen bu gis Thiès. gis nga ci combat bi ngeen baal ma dem ak sama xalaat laay wax sama xalaat laay wax Reug amul choix ci combat bi amul choix bi parce que Sa Thiès da dina ko imposer xeex mais man bu Sa Thiès commencé cokaas rek moom na dugg ci biir ci biir na jéem a jàpp ci biir quoi na jéem a jàpp ci biir ngeen bu mu jéem a fayante ak moom xeex bu fayante ak moom rek baaxul moo ko gën a hmm? bu mu jéem a sànnante loo ak moom comme ngay door muy door mais gars yi dañ ngay door muy door bu mu jàng dina xeex ba ñëw dañ ne Reug Reug dem na jàngi ji xeex ba ñëw. waaw mais xeex yi bokkul gis nga rek rek xeex bu muy doon jànge fële xeex bu jaar yoon lañ koy jàngal xeexu tubaab mais xeexu MMA yooyu lañ koy jàngal yow nag xam nga ni xeexu MMA ak xeexu ki bokkuñu dañoo wute parce que wax dëgg xam nga ni Sa buy xeex pour ut buntu la rek waaye du xeex pour kawutee Reug Reug wala yow déedéet xeex pour am fu mu jàpp wala pour jaar ci ginnaawam quoi mais du xeex bu jaarul bu mu xeex ak moom man maa ngi ko koy wax fii bu fekkee mu gis bu mu xeex ak Sa bu Sa Thiès déclenché rek moom na dugg ci biir na ko encadré rek dugg ci biir bu bu mu jéem a moo ko gën a gaaw du xeex fi sax mu jaar ci ginnaawam comprendre nga lu ma wax na na ko encadré rek dugg ci biir mais bu mu sànnante loxo ak moom fayu bu fayu rek Sa Thiès sànni na ko ba yàgg du taxaw Sa dafa am doole mën na bëri ba pare dafa gaaw lool kaar dafa gaaw dafa mais man li ma jaaxal. Mhm. man li ma jaaxal. ala booy ñaar daf ci mu gis rek. 2018 booy ñaar dafa rëcc rek billaay dafa rëcc rek. lu tax nga lu dafa rëcc booy ñaar ci digg doo temps yooyu te Sa confiance bi mu dégagé moo ëpp. sinu boña defo mucc rek yow gis nga ak ak Sa Thiès boña moo gën a neex ak Balla Gaye bokkuñu mhm. yow gis nga bokkuñu sax bokkuñu mhm. Balla Gaye xam te ne day dem ba jàpp ci sa tànk ba pare muy tëdd ak yow kooku du Balla Gaye kooku du Balla Gaye non nañu waxante dëgg rek ah! mais nag Balla Gaye na nangu ni jàmbaar la am na ay supporters bëgg nañ ko lool mu may bu mu leen décevoir toujours mhm. gis nga nit da nga am fooy tollu da ngay bàyyi quoi comme footballeur yi ñu am honneur yëpp bëgguñu ku leen di humilier quoi humilier da mm. moom moom Balla Gaye na jéem a encadré Sa wax dëgg yàlla def na lu mu war a def ci lam mais bu muy nekk foofu di humilier rek di jël revanche fare di ji soxlewul loolu mm. am na xaalis ba pare am na bàyyi rek mun na pour def lu mu doon def mun na ko yow gis nga combat am yëpp mu doon def man sax dama ci découragé contre bombardier ak ñeneen nekkatul Balla Gaye daal mais man Fadam ki bëgg naa ko laaj benn affaire ah. ah il faut mu tuuti ci Reug Sa Thiès